la conférence des leaders de Yévé Askanui, vous le savez, nous l'avons vécu ensemble. Nous sommes venus à Giguinchor partager avec euh, tous les responsables de Yévé Askanui de la région de Giguinchor des moments de communion, des moments de prière et des moments d'appréciation d'une situation politique que nous avons vécue et de laquelle ont eu cours les événements regrettables pour lesquels nous sommes venus aujourd'hui rendre visite à Bignona et à Giguinchor à ces familles éprouvées mais digne et debout. Vous le savez, le 17 dernier, la coalition Yehu Askanui avait convié les Sénégalaises et les Sénégalais à une manifestation pacifique pour décrier la forfaiture du ministère de l'Intérieur et du Conseil constitutionnel concernant nos listes aux élections législatives. De cette situation, un drame innommable est vécu par des familles à Bignona, à Giguinchor et à Dakar mais surtout beaucoup de camarades, beaucoup de citoyens ont vécu, ont enduré des moments inoubliables de privation de liberté, mais surtout de torture. Et le mot n'est pas de trop. Les plus de 80 jeunes camarades et citoyens qui avaient été arrêtés incarcérés nous ont fait part des brimades et des sévices dont ils ont fait l'objet ou dont ils ont été victimes de la part des forces de défense et de sécurité. C'est honteux. C'est inacceptable. D'ailleurs, ils ont dû terminer leur rencontre avec la presse ce jour à Dakar et comptez sur nous. Toutes leurs initiatives seront soutenues par la conférence des leaders parce que certains ont été maltraités, bastonnés et ils n'ont pas envie de laisser passer ou ils n'ont pas envie de supporter sans dénoncer. Ils n'ont pas envie d'accepter sans réagir. Nous sommes venus donc aujourd'hui dans la région de Giguinchor communier avec des familles, avec des militants et des camarades. Ce furent des moments émouvants au cours desquels nous avons compris que être de la Casamance c'est être très digne, c'est être très courageux, c'est être très endurant. C'est ce que nous avons retenu des mères et des pères, des oncles, des frères et des sœurs que nous avons rencontrés aujourd'hui. Bien sûr, ceux qui vont intervenir après moi reviendront dessus. Mais délégation bi nga xamné la fi conférence des leaders yoni tay dañu pour waxtaan si ak seen bop waxtaan ak seen papa Jigen mak chamign Rak nijaay yu xalé yi nga xamné tek nañ nous dañu faat seen bakkan ñu ñëw mu am ñaari signification wala ñaari yëf yu ko wunda bu bi du guleet fii ci région de Ziguinchor ci ay manifestations politiques ay bakkan di rot est-ce que nous devons laisser continuer ou perdurer une pareille situation avec les familles nous avons dit non c'est trop c'est trop mënuñu képp ku fi défendre sa liberté yoroo fital yoroo ngàndaay yoro dara taxaw di yuuxu naan d'accorduma ñu mën di la faagaagal wala ñu di la faat sa bakkan kenn mënatu ko nangu moo tax lii ñu génn ñi nga xam ni tëjoon nañ leen kaso Ngini procureur de la République mais avec détié député Mamdiara Femme, avec Mam le maire Ahmed Aïdara et plus de 200 et quelques personnes dañ ont arrêté en parce que rek défendre droits, ak liberté est-ce que dañ tiré ci au Ken war wax ni d'accord ken war wax ci mbedd mi et nous sommes en face d'un pouvoir bo xamni ni lu ko neex nu ko neex lay interpréter loi bi et malheureusement pour notre malheur à nous tous à chaque fois mu def ko justice bi nga xamni mo moo waroon rempart da kaa jox deug lolou motax le 17 mel ni mu mel la fa xew xew fa

pour le raffermissement, de nos droits, pour que l'expression populaire, démocratique, puisse être exercée, lolu mo wund ñu parce que bañ loolu waa bëggoon def lolu tax ñu dund liñ dund tay et paye un lourd tribut ñu tay dajek dajeek ay njabot ay wayjur ay jigéen ay papa ak yaay muy Bignona nga xam ni suñu jarbaat suñu doom suñu rakk suñu camarade lay jaata moom lañ fa faat bakkanam li ci metti mooy que ni dañ ko faat ba pare te waa këram mun ñu fexe ba jot ci néew bi mu ñu ñu jot ci ñëw bi parce que li war nekk defaguñ ko état bi li ko war mooy wax waa kër gi kii nga xam ni mooy xale boo xam ne dafa demoon rek pour exercer droit am al manifester dañ ko faat lan moo ko faat kan moo ko faat nan lañ ko faate loolu dong la njaboot gi soxla ba léegi mënuñu ci jot mooy li am aussi Ziguinchor ci way su juru Idrissa Goudiaby Idrissa Goudiaby ak Abdoulaye Diatta wuute ñële xamaguñu lu rey seen doom mënuñu fexe ba jot ci néew bi li ñuy laaj ci Idrissa Goudiaby la lañuy laaj si Ablaye parce que sa dañ ko faat ba pare ni def nañu autopsie wax ni nii la faatoo njabootam ni ñu ni leen ñun d'accord nañu suñu doom gaañu na mais li ngeen wax ni noonu lañ ko faatee ñi mu nekkaloon nee nañu du noon la faatoo dañu bëgg ñu def contre-expertise depuis ñu doon bañ suñu teewaay tey nag moo doon wax ak njaboot yooyu ni leen ñun dañu ànd ak ñoom bokk ak ñoom

fii autopsie bi ñu def wax li ñu wax kenn d'accordu ci dañ ni ñun dañuy def contre expertise mais xam nga li dalal suñu xel mooy muy na muy Ziguinchor bala ñoo wax njaboot yi ñoo waxal seen bopp ni ñoom su fa seeni doom doon toog ay weeri weer mën nañ ko muñ mën nañ ko xaar dañu bëgg xam lan moo rey seeni doom nan la seeni doom faato lolu sante yalla la bu baax ça signifie quoi que li xew Ziguinchor mo war dak li xew Dakar mo war dak ku manifester ñu ray la ku fi manifester ñu ray la mais lolu mo war dak c'est ça qui doit cesser et lolu la ñu nijaayu Idrissa wax tay lolu la ñu ay way ablay wax tay ñu dal mu dalal suñu xel lool parce que nak daañu xam lan moo leen faat pour que ëllëg loolu bañ a teene ñu rafetlu lool loolu waxtaan ceeg ñoom gërëm leen sant leen ñun suñu camarades yi wax daañ ci continuer daañu def lépp li nga xam ni moom lañu war pour que dëgg gi feeñ pour que ñu xam ñooñu lan moo leen faat ak kan moo leen faat biñu xeyé dañu imam Fansu Bodjan, bu biñona muy suñu wayjur di suñu kilifa bi nga xamé ni lay xew xewna dafa Wo askan wi wo jullit wo woo parce que dama leen fàtte wax sànq ne Bignona ba imam yaangi tok curé c'est-à-dire toutes les autorités religieuses

bëgg ngeen xam ne ñun li ñu tax jóg du suñu bopp askan wee ñu ñor askan wi nga xam ni gëm na ni élection yi ñu jëm incha allah dañuy gagné kooku amul doute maa leen wax jàpp leen ko tey dañuy am ndam ci kàttanu yàlla parce que ñii fi ne nekkuñu ci dëgg jëfewuñu dëgg doxaluñu dëgg gëmuñu dëgg ànduñoo dëgg te askan wi dëddu na leen yaakaar googu nga xam ni famille yeeg mbedd meeg ñëpp wax nañ ñu ko moo tax ñu nit lu ñu mën lu ñu mënul daañu jéem pour que dëgg am ci lii nga xam ne moo fi xew loolu moo doon comprendre ngeen li ñu fi li doon suñu solo tànk yi comprendre ngeen liñ fi jëlee tey yaayu a eu beaucoup parce que li ñu dund moo ko tax li ñu mën daal jeexale mooy que ni famille Bignonac, Bignona mais famille fu mu désormais dans ce pays ci ay xeex démocratique lu fi amate rek daañu ko régler suñu D'autres dootuñu tankham lu dara dootuñu bàyyi dara d'autres dootuñu n'angou dara je crois que c'est ça qui est important mais li tax nit ñi toll foofu mooy li ñu tànqe tey ci njaboot des familles outrées, des familles blessées, des familles meurtries, des mamans qui n'arrivaient même plus à, articuler des mots, tellement elles avaient été atteintes dans leur chair. parce que Moussa Fat, nos collègues, Ousmane Sonko comme ko mais ni sax ñuy alors lolo tax li ñu jëlee Ziguinchor tey muy début processus bu jëm kanam ci suñu attitude pour défendre li nga xamné mom la askan wi di jànkonte désormais ku ñu ko def rek ñu def la ko bëgguma wax mo olof bi nga xamné ne rafetul du xam ngeen lim bëgg wax bëgguma aw foofu mais ku ñu ko def rek ñu def la ko parce que nag je crois que yëf ki koo ni duma ko topp fa ngeen djema a soriwul koo ni duma ko topp fa ngeen djema a soriwul rangooñ ñi gis tay ben l'oncle de qui, euh, nu mu tudd Idrissa fay joy yaayam mamam dañuy joy ba ñun dañu tit. pourquoi ci xalé bu génnoon rek dem di manifester et mais ce qui est révoltant

mais dañu am kersa ñemewuñ dem fo parce que suñu leen fofu gars yi lynché leen donc dem bëgg dal dalal xelu waa Ziguinchor dajal dalal xelu askan bi gis nga li dalon ñom décce li dalon ñi mujjé dugg kasso kaso ñu ko nangu ku fi defati rek ñu def la ko en tout cas maa ngi leen di gërëm di leen sant di remercier ñi ñu teeru ñépp Ziguinchor commencé ko ci njaboot yi ñu dem les responsables de Yewwi Askanui, les autorités ñep ñu ngi leen di gërëm di leen sant yeen ñi ko ñëw fekkee di seede xam dans notre détermination à défendre les masses sénégalaises même ma wax leen élection yi ñu jëm loo rek ñu soxal xam ngeen mais nous sommes déterminés à y aller franchement yaa ngi may xool di franchement entièrement parce que nous sommes certains Inch'Allah, de gagner loolu moo ñu wóor gis nga ñii ñoo leen mën daañ leen tëcc ba ñu xam ne lépp a dëgg la maa ngi leen di gërëm leen sax.